suñu borom subhanahu wa taala mu sàmmal nu suñu kilifa gi Cheikh Mouhamadou Mountakha yokk aw fanam yàggal ko fi lool te yokkal ko ak wéram <clears throat> ba mu àggale ay yéenam yépp ñuy dellu si rek <clears throat> di fàttalente lu jëm ci bis bu màgg bi ñu génne muy bisu tabaski doon nag bisub xéewal doon bisub sant yàlla doon bis boo xam ne bu bari bu fees dell la ak ay maana ndax li ci xewoon muy jàngale gëm yàlla jàngale wóolu suñ boroom jàngale muñ jàngale topp suñu boroom subhanahu wa taala topp ndigal waaye mu doon bis boo xam ne nag bokk na ci lim nu war fàttali nun doomu aadama mooy teral gi yàlla teral doomu aadama ak xéewal yu yaatu yi ko defal ndax suñ boroom subhanahu wa taala dafa teral doomu aadama tàgganal tàggatal ko li ci diggante asamaan ak suuf lépp rekk ci mbaaxug suñu boroom ci la ko tàggatalee doomu aadama ba tax doomu aadama mën a jël mbindeef ne moom yorug ruux mu man koo lewetal man koo jëfandikoo ba noppi dara du ko ca fekk suñu boroom sax da ko cay fay da ko cay yokk tuyaaba kon loola taraanga féetewu ko kaw kon yàlla teral na doomu adama lool ba tax lépp lu nekk ci diggante asamaan ak suuf moo sañ koo jëfandikoo ci lu neex yàlla yàlla mu wax ne alam tara anna allaha alam taraw lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi wa asbaga alaykum niamahu zahiratan wa batina suñu boroom subhanahu wa taala moo ñu tàggatal kon li nekk ci diggante asamaan ak suuf yaatal ay xéewalam ci loo xam ne lu luñ mën a teg bët la ak loo xam ne sax mëne su ko teg bët kon nag doomu aadama war nay gis nga neel li ko yàlla defal doomu aadama war nay gis teraanga ji ko yàlla teral doomu aadama war na yëg xéewal yi ko suñu boroom xéewale war na ko ci sant it waaye la gën a am solo ci sant yàlla ginnaaw sant giñ koy sant ci suñuy làmmiñ di ko sant ci suñuy xol di yëg ne moo nu defal xéewal yi nu am la gën a kawe ci sant yàlla mooy nekk ci li mu bëgg nekk ci ndigalam di moytu ay tereem di ca góor-góor lu nu man kon doomu dama war nay xam bu baax lu ko indi ci kaw suuf mu nekk ca ngir sante ko yàlla mi ko teral te li ñu taxa li tax suñu boroom sàkk nu wàcce nu fi la ca jiitu mooy jaamu ko jaamu gu sell ak àdduna bi ñu nekk ñu liggéey ko jagal ko defar ko ba man fee nekk kon wa ma umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu ddin wa ma xalaqtul jinna wal insa li yabudun waaye nag huwa anshaakum min al ardi wa staamarakum fiha kon suñu boroom mission boobu la jox doomu aadama muy jaamu ko ak liggéey adduna bi defar ko jagal ko ba man fee nekk di ko jaamu loole nag yitte la joo xam ne moom la jullit bu nekk war a teg ci kanamam bàyyi ko xel waaye war a xam ne it kon lépp luy tax yitte jooju mën a sotti lépp luy tax nit mën a jaamu yàlla jaamu yàlla ku sell mën a liggéey loola war nañ koo bàyyi xel dafa bokk nag ci liy tax nit man loolu muy charte boo xam ne munta ñàkk mooy jàmm am ak dal am ak kóolute am kon jàmm sart la ci nit ki mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell ci ak dal ci akuk tal waaye sart la ci nit ki mën a liggéey liggéey bu am njariñ ci kaw suuf ndax saa bu dal amut jàmm amut kenn du tal leneen doo tala jaamu yàlla jaamu yàlla gu sell doo tala liggéey liggéey bu jaar yoon kon nag jàmm jooju nga xam ne kon ni jaamu yàlla nekk farata sàmm ko day daal di nekk farata ndax maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajibun lépp loo xam ne dafa am lu war te balaa mën a am loola am loola day daal di war kon fexe ba jàmmu am day daal di nekk warugar kon jullit yépp fu ñu mën a nekk bokk na ci yitte ji gën a kawe yitte ji ñu war a gën a yitte woo muy fexe ba jàmm am ca jàmm joojee ngir mën a jaamu yàlla ngir mën a liggéey moo de moo cay doon jubluwaay ba suñu réew mi it kon jullit yépp war nañoo bàyyi xel jéem a def yitte ci sàmm jàmm ji fi nekk aar ko ba dara du ko xajamal dara du ko yàq xam nañ ne ñu ngi jublu ay xew-xew yoo xam ne léeg-léeg fitna daana ci juddoo te muy ay wote yi nga xam ne fi ak ñaari ay bis nañ ci yegg mu doon loo xam ne léeg-léeg ci ay réew mën na faa jur fitna mën na faa jur ak daladi mën na faa jur ay yëngutu yoo xam ne ay yàq mën na caa juddoo bu ñu tollee jamono jooju day jaadu kon ñuy fàttali ne jàmm sàmm ko day farata lépp luy tax mu amit day daal di doon farata kon bu ñu tolloo ci waxtu woowu day jaadu ñuy fàttalente ne kenn ku nekk lay sa nga def ko ba jàmm ju ji ñu suñu boroom xéewale ñu mën koo sàmm te loola kenn ku nekk da ciy am wàll ñi nga xam ne ñoom lañ dénk baat ñu war a saytu war a mbir yépp nekk ci seen loxo am nañ ci wàll seen wàll mooy fexe ba lépp luy am am ci ak maandute am ci ak leer am ci ak set ba xel yépp dal ba ñépp am kóoluteef ci mbir yi na muy tëddee loola bokk na ci lii tax jàmm mën a am waaye ñi nga xam ne ñooy wutit di sàkku ñoom ñépp ñu yëg ne seen warugar la seen responsabilité la ci jàmmu am ba tax réew mi mën a jëm mën a liggéey ñu war a jaamu yàlla mën a jaamu yàlla kenn ku nekk yëg ne am nga ci wàll loola bu amee nit ñi it ci seen bopp ñoom it ñu mën a am ak dal mën am yar mën a am teggiin kenn ku nekk nekk ca la war la war boo demee ba war a jooxe sa farata ji nga seq ak sam réew nga def ko ci jàmm ci ak dal ci ab yar delluwaat loola mooy tax jàmm mën a am waaye ñépp yéene lu baax yéenente jàmm ndax lépp loo xam ne mooy nekk ci xol yi rek mooy feeñ ci doxalin yi mooy feeñ ci nekkin wi kon kenn ku nekk ëmb jàmmi réew mi ëmb aw yiw loolu boo amee rek jàmm dana daal di mën ñuy fàtt war a fàttaliku nag njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa ci lépp loo xam ne nit a ngi koy sàkku di ko wut ndax li ñuy yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal mooy nit lu muy wut da ko war a wut ci ak dal da ko war a wut ci teey da ko war a wut ci ab yar yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ne inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa inna allaha yuti ala rifqi ma al unfi suñu boroom subhaanahu wa taala nit ku ku ku bëgg ak dal la ku bëgg ak teey la te yàlla dina jox nit ki ci ak teyey akuk dal loo xam ne du ko ko jox ci aw ay ak fitna ak xët-xët kon dal googu ak teey googu dañ koy sàkku ci ñépp ñiy wut ak ñi nga xam ne ñooy saytu mbir yi kenn ku nekk war a ànd ak dal ànd ak teey ba lépp li ñuy sàkku ku ko ci suñ boroom jox nga xam ne suñ boroom mooy joxe nit ki li ko war mooy sàkku te rafetal na muy sàkkoo te sax képp kuy sàkku lu jëm ci loo xam ne ñépp a ko bokk ak dal rek akuk teey moom la la suñu borom subhanahu wa taala digal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 محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

allahu akbar la kon eh, képp koo xam ne yaa ngi wut war ngaa wut ci ak dal ak teey waaye képp koo xam ne it dénk nañ la lañ la dénk war nga koo yor ci ak dal ak teey ak yërmande ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ñaanoon ne yow yàlla képp koo xam ne méngoo na dara ci sama xeet wi yërëm leen ànd ko ak dal ak teey yàlla nanga ko yërëm nanga ko jàppale ci ak dal ak teey waaye képp koo xam ne méngoo na dara ci sama xeet taral ci ñoom yow suñ boroom yàlla na nga taral ci moom wax ne allahumma man waliya min ummati shay'an fa rafaqa bihim farfuq bih wa man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alayhim fashquq alayhi te lépp loo xam ne dañ ko saytu ci anam gu dal anam gu teey loola day taaru waaye lépp loo xam ne nag ak dalaku teey nekku ca loola day ñaaw te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax ne maa kaana rifqu fi cheyin illa zaanahu wa ma nuzia min cheyin illa shaanahu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénkaane woon ne yow maa ngi lay dénk yow jullit bi lépp looy yëngatu nga yëngatu doo ci ak dal akuk teey waaye moytu lépp loo xam ne fitna la ak wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw alayka bi rifqi wa iyaaki wal unfa wal fuxsha kon mbokk yi bu ñu tolloo ci jamono yi kenn ku nekk war nga xam lay sa àq ak lay warugar ku nekk sañ naa sàkku ñu wóolu la fal la nga ngay waxal askan wi di leen doxal di leen jottali seen aajo su fekkee ne yëg nga ci sa bopp man-man boobee ndax loolu moom diine nangu na ko ndax suñu boroom mi ngi ñuy nettali sayidna yusufa alayhi salaam ba muy wax ne qaala jaalni ala xazaini al ardi inni xafizun alimun koo xam ne am nga jikko yu ko mate am kàttan lu ko mate am xam-xam bu ko mate sañ nga laaj ñu wóol la dénk la te loolu nag bu dee sa àq waaye booy sàkku kon day daa war na ngay sàkkoo nga sàkkoo ko ci anam gu rafet anam gu sell ndax loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko digle wax ne yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla te rafetal seenu càkku yaa ayuhan naasu ittaqullaha wa ajmilu fi talabi ragal leen yàlla mooy góorgóorlu leen ci ndigalam mi ak tere yi di ko bàyyi xel moytu lépp loo xam ne tere na ko di góorgóorlu ci lépp lu mu digle di ko sedd ci lépp lu ngeen di yëngatu di ko bàyyi xel te loola nag ku ko def looy wut danga ko rafetal te xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom mooy maye am na beneen xadis boo xam ne dëkk ca wax ne ajmilu fi talabi dunya fa inna kullan muyassarun lima xuliqa lahu na ngeen rafetal ni ngeen di sàkkoo seen mbiri àdduna ndax kenn ku nekk la yàlla bind ci moom dana ko ko yombalal lool te kon àq la ci ñi nga xam ne nag nooy nit ñi nga xam ne ay jàmbur lañ ñu am ak dal sañ a dund ci dal mën a liggéey mën a jaamu yàlla ñu sàmmal leen ko seen àq la ñoom kon dal kenn ku nekk bu ñu tolloo fii war ngaa bàyyi xel li la suñu borom subhanahu wa taala digal yonent bi alayhi salatu la ko te mooy nga def sa warugar te bàyyi xel ñeneen ñi ci des bàyyi xel ak jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom dañuy jaam dañuy jaamu yàlla di liggéey seenub liggéey te loolu moom lañu suñu kilifa yi digal moom lañuy ñuy fàttali waxtu wu nekk ñuy fàttali jaam yàlla yi ñu sax ci ak jub sax ci ak maandu sax ci ak dal waaye di def loo xam ne luy indi jàmm la saa su nekk moytu lépp loo xam ne fitna la ndax réew mi kat kenn moomu ko ñépp a ko bokk ci ñi nga xam ne sax dañuy wut baat seen warugar mooy ñu yëg ne dañuy liggéeyal askan wi waaye du ne ñoom ñoomoom réew mi ndax ñi yëngatu ci wàllu politik di ko sàkku ak bëgg koo téye ñoom ñëpp buñ xooloon ci réew mi lim bu néew la doon baree bari ñu ngi ci réew mi di dund di jaamu yàlla di liggéey ñu war leen sàmmal seenu àq seeni àq war leen a sàmmal seenu dal googu te wut jàmm nag ak sàmm ko warugaru jullit yépp la moom ndax yàlla moo ko digle yonent bi digle ko waaye rawati rawatina koo xam ne taalibe sëriñ Tuubaa la kooku moom lépp loo xam ne fitna la da ko war a moytu da ko war a daw ndax sëriñ Tuubaa kat am njàngaleem lépp da koo teg ci jàmm da koo teg ci ak dal teg su ko ci wóolu suñu boroom ak dellu ci suñu boroom ak di tuub loolu rek la daan digle saa ay fitna ma saa juddu it day delloo taalibe yi ci yàlla digal leen ñu tuub loola nit ku nekk lam cay wane mooy kenn ku nekk sa bopp nga war a tàmbale sa bopp nga war a xool xool ba xam yow lu la war nga nekk ca bu kenn ku nekk defee noona rek jàmm rek kay am te Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu waxoon na ne inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksihima